Euh, ñu ñu découvrir beneen façon test bi nga xam ni test anal la. Hmm. waaw loolu yow lan moo ci sa xalaat ndax mën na nekk wala mënul nekk. waaw sur le plan scientifique mënu ma mënul nekk. parce que hmm. boo nee ma test anal man li ma ci yitteel rek mooy euh, sécrétion biologique yi liquide yiy génn ci nit ki di ko am fu mu nekk rek war nañ ko fu mën a jëlee. bu ñu gisee ne hmm. microbe bi ma nga fa. bu fekkee dafay génn ci anus bi. ñu gis ko parce que bu njëkk ba muy doog a tàmbali. dañu doon transmission anal bi mënul nekk.

bu ma virus parce que dafa lu dans le monde entier xamaguñ ko won ñu di ko wutal ay ngir gassal ko ngir mu dugg ci. momit mom ay fay yu ñu nekk. ñu jang ci vous ngir avancer motax may wax né gi ci parce que dañ lay jox information tel tay ji à une semaine deux jours information boobu do vérifier ndax lu bees lu xew ba tax du vérifié wu mm-hmm. moo tax demee ci xel du mën a ñàkk àlakuliat mais bu dee comme par exemple chaque jour ñu jàng ci comme li nga wax nii euh, faj ko dina dina dina yomb jëlee ko ci àdduna bi dina yomb waaw bon euh, moom daf ñuy jàngal di gën a yokk suñu xarañte mm-hmm. ñuy ñuy dina dina dina taxit nag mesures yi jël ñu def ko des mesures à large spectre mooy mm-hmm. maanaam lu may génne lu ne ma ñaaw njortu ci moom mi ngi waajal soppeeku sàngam boo xam ne tax mu nangam xañ na bés bu naree dem dana def ay modification yo xamni ne si day nek des modifications moins virulentes dootu bokk ak bu njëkk ba fekk manam spectre biñ ñu defoon muy vaccin biñ ñu duguna dugg naa ko ci biram ba yi ñu am yépp bokk na ci yi ko mën a faagaagal boobaa xam ne dana mëna a dem mais est-ce que amna vaccin bo xamni vaccin bi day anticiper ci ay mutation virus waaw bobu nak lañ amagul parce que virus bi ci bopam création lu bees la motax tax waajo ñu ko woon vaccin bu bees kon heure bu benn forme bu bees amé rek dama naan la cellule bu bees jiduna na caabi ju bees faaw mu jiddu te man faaw ñu utaat donc leneen lu bees lu koy faj léegi-léegi nag nga am boo xam ne mutation bi dafay inclure ba léegi dafay des ci biir virus ba mu nekkoon maanaam bi nga amoon da koy mën a fajaale ba léegi que mën nga jàpp ne am na vaccin yoo xam ne mën nañ ko jël rek sànni ndax nouvelle souche yi génn suba ñaan ñu ko yàlla bu beneen souche génnee beneen souche génnaat ginnaaw suba bon du ma wax sax jël sànni mhm. parce que même bu fekkee dina la aar ci temps de souche c'est déjà bon mhm. même parce que yow mën nga am coronavirus te amoo bu bees bi Mm-hmm. kon bu boobaa yow mi nga xamni ne si tombé woo ci bu bess bi mais la nga jëlone da lay continuer di lay aar ba légui mm-hmm. mi ngi dul ar lu da nga tombé ci benen souche bu bees boo xam si bii amu woon matukaay légui bo vacciné wo légui benen souche ñew bo vacciné wo benen souche ñew mën nga amat fièvre bi ki vacciné wu ba pare sax mm-hmm. man moyen préventif yi dañ naan ko jëlal say moyen ba légui parce que ki am fièvre ba pare sax dañ naan ko continuer di ko jël kon ki vacciné wu ba sax day continuer di jël moyen moyen yi ñëpp di jël di respecter lepp lépp lu ñu wax ndaxte mom xamul ci ban souche lay tomber